daayira mu xàddimatul xidma di daayira bi sëriñ Saliou Mbacke dénkoon lépp lu jëm ci saytug jumaay Touba waaye itam armeel yi mbooleem xalifa bu fi jaar ginnaaw bi itam fetliwaat nga li nga xam ne moom moo di ndigal loolu lee jamono ji nag ñuy liggéey liggéey bu am solo ci dëkk bu sell bi di Touba waaye itam ci li nga xam ne ni moom la leen sëriñ bi dénk jamono ji ñu génn nag ñu doon amal ab opération coup de poing boo xam ne nii dañ ko doon setal waaye itam dindi lépp loo xam ne nii ay defkati ñaawteef la wala lépp loo xam ne ni gis nañu ko mu nekk ci pénc jumaa ngi te waru fee nekk ci boobule opération sax tax nañu daal teg loxo téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn nit yoo xam ne nii jàpp nañu ne lañ doon nekk ci pencum jumaay Touba jaaduwul. sëriñ Abdou Lahad Bousso di ki yore kàddu ku daayira Muxaddamatul Xidma di dikkaat ci boobule opération. yàlla defal nañu ci tawféex joo xam ne euh, mën naa wax ne bi ñu ko tàmbalee ak léegi jafe-jafe amu ci ndax euh, xëy na nit ñi gën nañoo miin daayira bi mbooloo mi gën nañ koo xam. gën nañoo itam am compréhension ci liggéey bi nga xam ne moom lañuy def ba tax na amuñu fi ak kenn benn jafe-jafe ci coow sax yaakaar naa amu ko fi benn yoon ndax fi jamono toll ak ni penc mi mel te muy loo xam ne teg na ci bëtam moom mu bëgg na ñu yokk taxawaay boobu ndax dafa mel ne euh, am na yoo xam ne mi ngi romandaat di ñëwaat ndànk-ndànk te suñ ko teelu te garantu mën naa doxaat ba delluwaat fa mu nekkoon soññee boobu nag moo indi opération bii nga xam ne amal nañ ko ci jamono yi ñu toll. loolu nag am na lu mu jur li jur mooy euh, am na lu mat téeméeri nit ak juróom ak juróom yoo xam ne euh, téye nañu leen fi ci fii bokkul nag waxuma rek ñi nga xam ne. amante nañu ak ñoom maanaam woo leen ñu ñëw ci biir jumaa ji ñu wax ak ñoom lool moom lim bu baree bare bari la waaye ñi nga xam ne tey nañ leen ngir ay yëf loolu toll na ci téeméeri nit ak juróom ñeen fukk ak juróom-benn. ci am ndaje muñ doon def ak taskatu xibaar yi daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi dikkaat ci li nga xam ne moom moo di ndénkaan li nga xam ne ni moom lañ leen dénk ak jamono ji fi ñu toll waaye itam situation bi nga xam ne ni ci la daayira bi nekk ak itam fan la ñu ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyloo itam comme ni nga ko waxee dañ leen di tàggat ndax képp koo xam ne dafay liggéey ci aw nit xam nga jumaa ji ak juma ju ne lu néew néew néew lu ñaar fukk junni nit danañ fi ñëw ñaar fukki junni nit nag kuy jëflante ak ñoom par semaine buñ la tàggatul yaakaar naa doo mën liggéey ak ñoom te euh, ajjuma yi ñuy ñuy liggéey ak kori yeeg tabaski yi moo gën a xat bu dul màgg ak ak màggali ak màggal yi nga xam ne ñooy am ci biir dëkk bi yooyu yaakaar naa moo gën a xat penc mi bu fi dara xewul teewul nag su opération yu mel ni amee dañ leen di dajalewaat gën leen a tàggataat ci doxi bi nga xam ne moom lañuy dox ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy jëflanteel fi Muxaddamatul Xidma jëm mooy fi ko sëñ bi loo rek fi ko sëñ bi jëmloo rek fa la jëm euh, mbooloo la moom murit ni mboolooy murit yëpp nekkee mbooloo murit tey jii fii la ñu sëñ bi di liggéeyloo ci jumaa ji bu sëñ bi soppoon sunu liggéey tam tey nañu ñëw leen liggéey ko feneen it dañuy dem liggéey ji ko foofa ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa moo ñu ñor mooy suñu yitte tey jii nag fi mu jëm mooy fexe ba bi bëgg ci penc mi te sant nu ko ñun ñu fexe ba sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee loolu mooy objectif bi nga xam ne mooy. ki tëjtal kàddu moom sëriñ Abdou Lahad Bousso di dikkaat li nga xam ne moom moo xewoon ci armeelu Baqiya yi di fësal ne daal ndimbal yi nga xam ne ni ña ngi ko doon ñaan ba nëgë ni ngir ñu gën a yokk kaaraange ga boobu ba nëgë ni àll ngi ne seen ndaw kenn déggagut leen lu ci jëm. doon nañ sàkku ñu yokkal ñu sécurité bi waaye xëy na itam ñu ngi koy séntu ba léegi. am na ci loo xam ne agseegul teewul nag ñun yokk nañ suñu vigilance ak mbooloo ma nga xam ne ñoo fa nekk di gën di saytu la fa nekk waaye rek bu dolli ko it nag ñu jël li lee bokk ci bilan bi nga xam ne nii daayira mu xàddimatul xidma amal na ko ci njeexitalu atum 2019 ak ndorteelu atum 2020 di bilan boo xam ne nii mën nañ ni dal na xel laata loolu muy fësal ne jamono ji daayira bi mi ngi waajal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di koor gi ak ndogu yi nga xam daan nañu ko amal ci biir jumaa yi Touba ak itamit activité yoo xam ne nii dafa jëm ci lépp loo xam ne day jëmmal diine ak lu baax ci biir dëkk bu sell bi ci Touba